ahlan bikum njiiti réew bu Sénégal Bassirou Diomaye fay fa xamal tukkib nemmeeku ca réewum Côte d'Ivoire niki démb Le Soleil yéene kaay na ñaari njiiti réew ya fa ñoo waxtaanee jëflante diggante ñaari réew ñu gën koo dëgëral rataxal ko waaye taxawaayu ñaari réew yi ci lu benn la dëgërël mbootaay réew Afrique bu sow jant bi muy CEDEAO loolu it fañ ko caa waxtaanee laas yéene kaay na Bassirou Diomaye Faye kay fa wax gis-gisam ci kanam Alassane Ouattara njiiti réew bu Côte d'Ivoire jëm ci CEDEAO ak Sako wax na ko président watara jot naa ci yow ay xelal ak i ndénkaane yoo xam ne suñ ci jaaree war nañoo mën a dëgëral ak lu bennale Afrique sow jant te réewum Sénégal ak réewum Côte d'Ivoire fa ñoo xam solo lool ci lépp luy dëgëral réew yi nekk ci Afrique sow jant bennale leen Alassane watara fa ko tontu na ko jomaay man ak yow waxtaan nañ ba déggoo nañ juboo nañu gis-gis yi nekk na benn ci lépp luy ñoŋal démocratie ak jëflante ci ñun réew yi nekk ci Afrique sow jant ba tax 24 heures yéen a kaay ne fay ak Ouattara fa ñoo juboo gis-gisee fañ koo méngale ci liy suqali ñaari réew yi ak mbootaay Afrique gi leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne ki fi nekkoon njiit réew bu Sénégal Macky Sall faa yaakaar na daal mënta rëcc moom Macky Sall ci tooxi doona njombe yu garaaw yi nga xam ne bi mu jiitee réew mi fa fay xam yi jëm ci xalalu réew mi nga xam ne fañ koo pasar pasare sàcc ko ay milliards yu xaaj du jeex naka noonu suufu Sénégal si fañ koo pasar pasare séddoo ko direct news yéen a kaay ne moom Macky Sall nag lu ji njaaga mooy njaag ndax moo jiite woon réew mi te mën nañoo jàpp sax na la ñuy jàppee ñi nga xam a sant moo santaane muy Macky Sall mu dem direct news ne président Diomaye Faye est-ce que yaakaar ngeen ne dana topp yëf yi ba mu sës képp ku sàcc alalu réew mi ku caxat-caxatee jël suufu Sénégal ci anam gu jaarul yoon yoon topp la même bu fekkee président Macky Sall sax l'évidence yéen a kaay na ko faa waxal leen gis nga Macky Sall fi mu nii fay waajal nu fayoo ci kaw Diomaye ba tax fa bëgg a dajale APR ak benn bokk yaakaar ngir ñu taxaw ci li ni mel tribune yéen a kaay dëggal ko ne APR kay fi mu toll nii fa ñoo yaaw seetal Abdoulaye Seydou Sow bokk APR moom fa tëkku waa Cour des comptes ne jarul ngeen leen di ragal fii kenn ragalul leen of naa gi jarta ragal commencé di tàngal ak a aaral yéen kaay bi na nag faa xamut Amadou Ba moom ban place lay am ci biir APR ba tey l'évidence yéen kaay na coowal suuf li takkar naa si fi mu fañ cee tudd Pape Diop bokk gis-gis ne mbuur kat moom it fañ ko caa jox ay hectares yu bari yu du xaaj du jeex léegi nag fañ lay delloo jox la ca suuf am ca mbuur kat nee na moom fañ fayee suufam sa waaye sàccut ko tappalewu ko keneen ku ñu tudd ca suufal mbuur kat ba bu Thiès Babacar Diop cent vingt moom la wax na lañ ko fa jox léegi moom mu séddale ko ci Dakar presse yéen a kaay nag moom maire ba Babacar Diop nee na liste bi ñi nga xam ne ñoom laa séddale suuf soosu du leen ko jox te du leen ko wan ndax fa xam ay kilifa diine yoo xam ne jox nañ leen ca suuf sa te bëgguma leen a weer ci mbedd mi ñëpp xam ne xam nañ ca suuf sa loolu ci Dakar presse la waaye ca lii yéen a kaay Babacar Diop nee na nag faa bëgg ngeen xam leen na juróom-ñett fukk ak juróom benn conseil ñoo nekk ca maire waaye juróom fukk ak ñett rek ñoo am ca suuf sa ña am ak ni ñu amee ak li tax ñu am ak li tax ñu tànn leen yépp fa ko leeral ca biir yéen a kaay ba leneen lu mu leeral moom Babacar Diop maire bu Thiès ca 24 heures mooy ne suuf soosu nag moom joxuñ ko ci benn parcelle ca Mbour 4 pour muy leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne liste bato yi nga xam ne ñoom lañ jox sañ-sañ ñu napp ci suñ géej gi ak ñi nga xam ne fañ leen a aaye tax na coalition nationale ngir ñoŋal napp gi génn nañ wax seen njiit la nag di Abdoulaye Ndiaye moom fa andi sax ay tuuma fa wax ne lu ëpp 20 000 ay yu dëkk Sénégal fa ñu dugg ci géej gi di napp fekki juróom-ñeenti bato yi bàyyi ko bitim réew li ñu seetlu mooy réewum russe yi ak chinois yi bokkuñ ci ñi war a napp nekkuñ ci liste yi dafa xam bato yoo xam ne ñaari nationalité lañ am dañuy àbb turu jàmbur lépp ngir napp fa bëri yëf yoo xam ne fañ ko war a leeral keneen ku war a leeral sénégalais yi lan moo tax directeur général yu bëri biñ leen falee ba léegi tàmbalee guñ liggéey loolu président Diomaye Faye moo ko war a leeral ba tax source a fa xëy na ko waa dogal AIBD ba léegi njiit lu bees la commencé gul liggéey CDC caisse de dépôt waxi nopp port bu ndakaaru faa ko jëlale ñii pare nañ di xaar ku leen war a remplacer gisaguñ ko ñu pare guñ loolu dafa jaaxal yéen a kaay bi ba tey source a laneen lu ko jaaxal mooy kër ga ñu wax Patisen xam ngeen fa lakkoon fan yii mooy kër ga ñu defaree mbiru lekk yooyu waaye yéen a kaay bi nee na ndekete am na geneen lakk gu gën a garaaw bu nekk biir Patisen te mooy liggéeykatu Patisen ya xanam bon gu métti gu doy waar ci la ñuy liggéey kër ga respecté wul benn yoon charte yi nga xam ne moom la liggéeykat ya a xam condition lañ leen war a ay jumtuwaay dara leneen lu ñaaw te bon mooy faux billet bi takkar naa sa ci réew mi waaye la rafet yéen a kaay nee na bu Sénégal fa teg loxo faux lu ëpp ñetti milliards ca Sénoba ba tey yéen a kaay bi fa ñoo xamal ne fa xam chauffeur yoo xam ne ci kaw tali bi yar xamadi gu métti moom la dawalee fa ñuy foyee bakkanu jàmbur yi daal di foo ci kaw tali bi respecté wuñ nu leen neex la dawalee léegi la sax fa ñuy njëkkalante ko course waaye am na fukki chauffeur a mun dem démb dëkkam mbux ko 1-0 mu ñuy coow dara la fa defut ñi nar a def dara nag tey ci àllarba ji mooy équipe bu mag a mag bi Real Madrid aay tey Real bu téyee Bayern na wallaay da xam ne lépp dëgg la pour final bi jaru laajte Real ak Dortmund ñooy finaalu ndax Real fay mbuqi tey na du seen morom sax maa leen ko wax aw ci sax xel ñaar l'observateur moom fa ñoo xamal ne xam na xeetu drogue bu bon boo xam ne fay rayee bu yi mooy xale yi ak internet bi xale yi ak téléphone bi tiktok beeg whatsapp beeg facebook ak ñoom seen ci kër yi war nañ cee waxaat de fa ngay gis xale bu am benn at ak genn wàll ba juróom benn at foo leen fekk ci kër yi ñu ngi téye seen téléphone yaay yi di manipuler ñoo ci gën a ay sax seen nday yi te boo koy nangu ñu jooy nag mën nañoo xëy soo ba ngoon nekk ci téléphone yi ñuy jàng sax réseaux sociaux yi fañ leen a bëgg a yàqal jàng les si ko yéen kaay ak l'observateur ñoom fa ñoo xëy xamal mbir mu garaaw mu ñaaw mu yéeme mu doy waar ah, yaaw seetal fa bu jigéen jànq ci benn kër waaye jànq la boo xam ne du togg moom nee na tuuti bi rek doom ji moom lay yore di ko toppatoo di ko jox mu lekk ak ñoom seen waaye xam nga jànq ba nu mu def nee na tuuti boobu ñu ko jox mu war koo téye toppatoo ko fukki weer ak benn la am mu jël nee tuuti boobu di def ak moom yëfu saay-saay aay fa mu ko tëral ca kaw a di ko def yu kenn xamul yu garaaw yu ñaaw yoo xam ne xel sax fa ko nanguwut ndekete caméra ya ñu koy filmer te yëgut ko borom kër ga fa wàcc rek xool caméra bi rek gis jànq bi ci kaw seen nee na tuuti doom ju ndaw ko ca kanam attekat ma li ma doon def loolu lan tey bàyyuma ko réccu naa ko faa jéggalu procureur fa sàkku ci attekat ba na na ko tëj fukki atu kaso ndax kilim def kirim la waa ma ne ay Sénégal lu nekk da ko fi gis wala nga dégg ko fi buñ moytu réew mi mooy xëy rek dox dem bàyyi fi nit ñi yow jànq bu toll ni yow bu la yëf yi tollee noonu kay nga dem uti jëkkër wala nga dem ci xale yu ponkal yu mag yi waaye ab mel na tuuti bu am onze mois mais kii fay faxantu